Yeah, yo, check it. Uh-huh. Yo, freestyle nigga. Ay yo, yo, check it. nee nañ ni maay tàmbali maa ngi nii di teg rami problème doog tàmbali maa ngi gis benn DJ mi ngi sol benn chemise fleurette li may teg moo ngi gën a net lii du internet maa ngi gis sa waay mi ngi laal ba tëm noonu lay demee ni gës bi lay te mel ni kuy tëgg tam-tam duut njaay rose yóbbu rab bi fii ba lac rose maa ngi gesu gis fata mi ngi sol ni benn pile li dafa nice noonu lay demee ni gës rab ba gaay Christ noonu lay demee ni gës kaay nga dund paradise yaa ngi nii ci ring bi noonu lay demee ni gës bàyyil rimbi rimbi yaa ngi aj nii sa tànk yi sol benn air fox noonu lay demee ni gës maa ngi gën a yokk sama force maanaam sama doole giñ may boole xoolal ñi may tege raami ni nga du mu xool gaan mi ngi nii di yëngal bopp real hip hop noonu ni nga day tey ma coob la mel ni xar maanaam bëy nga hip hop nu ma neex ma defee jarul ngan di tubay donc ma koy teg di la coob asalaamaaleyk maa ngi mel ni benn malaaka xoolal tey ma jël sa maleyk dama koy teg di ko teg wàcc sa kaw ba si say sucette kii ginaar la wala ni teemakaa coob daf ko fourchette maa ngi si biir may ga dama lay omelette def la nen dama graaw ba ma sóoro yaa sama ginaar da ngay nen dama koy teg di ko tëral yaa ngi yàq yow ak say casque MC du fi jéngu néga dama lay jóor yow say casquette ndànk ma koy tëral sa montre amul heure néga wakal sa yaram bilaay walaay da nga am ay heure dama koy raas di ko teg may xool ak say bët MC du fi jéngu néga français la gët dama koy teg di ko teg rimi di si kaw MC du fi jéngu néga maa ngi Dakar néew ma kaaw di ko di ko tëral fata moo ngi yëngal bopp MC du fi jéngu néga du ma mbot ngooki ngook nee nañ teen bi dafa raar néga maar seen baat yeah yeah yeah yeah you so ñu dem ci beneen round bi mooy de second right mooy ego yow li nga fi teg mënul taxaw ni sàkku bu vide bu ñu lëre képp nañ jël maa juutal ngeen bi everything wax ma loo ci mën nga bañ ma jàpp la géel terrain du wàcc laay alkaati du bàyyi dóor man di kaddu wàcc bu tey ko batik amoo ñàkk ne easy yattu mboy belem poro bàgg na tey talal samay loxo amin ndax naa ni mer baa ngi ñaanal wax ma budul ki ñu tiim ñi ciy des naa da xaw ma luñ ma mënal sama tey jërul négocier na ko tàngal bandi bu dugg di nga tub ni kër ceebu dagg biye pare aji makka tubla sa gaynde niggas yaa ko tey blem pro di ko teg maa nigga muy nii di gën a haay bidu diril ci kaw bit bi laa koy teg nigga aja fidil bàyyi teg si bële di ko impro gama wan benn ginnaaw mel ni genn nenaaw noo lay demee nigga maa koy teg nga gën a naaw di yëngal nii say mbagg noonu lay demee nii nga damay rap ba picc dagg tàgg hey. oh wow guys. it's looking good right ah. mu ngi waaw mi ngi naan am na am na am na niveau bi baax niveau bi baax na. <laughs> Zou ego trip. champion. Léew. Eh, yes yes eh def ay moor comme Titanic pare pour dee mala Palestine mala maay dëmm ngeen foog ma nit ne ko daw tey gaaw ak i plastique ba li may dóor ay bopp lay fëx liram si ñaag bi la jëm wategu ma sa jour ma dégg ay jëf sama dee ngay xaar boo ci perte ton temps dama teg tànk kii fi teg tànk si tànkam fël doon fi tonton calligraphe bi ni naa ay texte biir sin cin cong rak may fëlli Hong Kong sañ naa ca koog ma muskaa ay pon dalal may sa tonton dama bëri it teg si bëri fit te li may def xajul Sénégal donc su ma neexee ma ton ay su ma neexee ma sa su ma reewantu aj sama ñaari tànk may la bu saf saf sul tànk yëpp ñëwe jam eh ànd ak ñaanu meer wàcce jékki may tànn beer ay waay fils dama caga waay ciao ciao guys, thank you guys, yeah, yeah, yeah, yeah. Thank you guys, MC. Thank you guys, waay gars yi. Yéen a gaañ waay, Ah non, rafet waay. saay dóoral ma saay benn benn rimooy kër kër <laughs> yow check it mi ma jox raam ci benn kër noonu lay demee ni nga jàpp la di la job nii ba fër noonu lay demee niggas day niin dama koy bër képp maag di rab aw niggas dama yàgg a nekk mbër raami lay tey niggas jàpp la di la tër noonu lay demee niggas maa ngi nii di raami di ko teg niggas du ma càng dër noonu lay demee niggas raami lay teg ni mat si dër ah noonu lay demee niggas maa ngi koy teg di teg raami niggas di ko wër di ko jeex maanaam noonu lay demee niggas mel ni kuy tuux ay shit di la xër noonu lay demee niggas ci kaw bit bi def la benn coo di ko teg ni kuy jaar maa ngi nii di teg maa mi ni gës di jaay lii day jaar maanaam du lamb képp maag di teg ni gës noonu lay demee ni gës maa ngi koy wër boobu ba léegi di teg noon lay demee ni gës jox ma ci daak benn kër noonu lay demee ni gës dama koy sar ci sa biir kër képp maag dafay mel ni benn lii kër si duma ko yeegale mais <laughs> yaa man kas <laughs> waaw Mbër mbër waaw. yese <laughs> yese yese yese yese pare dugg làmb jeex ba mel ni mbër. ndànku ma koy tëral man duuma dër rek di ko teg damay raax pare dër jàpp seen MC di ko paap di ko si mburu ni ku yor bër ndànk ndànk ma koy tëral nee nañ ma seen directeur MC du fi jéngu négo koj ma gale procureur dama tàng li may def dama tàng si li may def ndànk ndànk ma koy teg nee naa sa montre amul heure damay def li may def quand tu peg ça di du man tëx tu es capteur néga man dama si fër néga man dama lay coob ni ku ne Touba lekk ba fër nigga maa ngi rap si bit bi di leen teral yeneen xër yeneen xër yeneen xër a jaaxaar mbay ma jàgga ndànk ndànk moo koy tëral parce que dama fër beneen fër gi yeneen kër yeneen tër si yeneen fër nigga use Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Feeling. Yeah. rafet na de lii la dëgg ngeen fi wane de macha allah moom ah. rafet na de. rafet na de ay jàmbaar ngeen toog leen ñu jox leen seen ay ngeen toogaat nank dara dara yàqoogul. alors. waaw meef ma rafet na trop am na am na vibe. meef da nga may wax ñaata nga leen jox euh, ñaata nga jox saa waay. Euh, BM Pro freestyle maa ngi ko jox set waaw. Hmm. ego trip. waaw ego trip may continuer si d' accord. après ma résumé. waaw d' accord. am na 7 mu ne freestyle mhm. euh, am na 7. Mhm. rhyme na 7. waaw ok professeur mhm. euh, ngi am 7. ñëw si ego trip mu ngi am 8. rhyme 7. all right. <laughs> rafet Kals. alors pour man. baal ma rek Kals. waaw deux minutes. Euh, nan nga nan nga nan nga apprécier. parce que apparemment sax seen point yëpp pratiquement. c'est demi-muro boo xoolee benn instant. ñam mhm. ñaar euh, gis naa ne niveau bi sorantewul quoi. waaw peut-être kii am na benn benn benn affaire bu particulier mooy xam nga MC da nga war am attitude. waaw nu ngay taxaw ak nu ngay dégage dégagement am déga xale la mais dégagement am da ngay sentir sa hip hop. dëgg loolu day joué quoi. Mhm, gis na ak son ak aussi waane bi waane bi. skills bi longal ak free bi quoi. mu si mooy am na mm. lu ñuy wax euh, application par rapport ak mooy ngay génn sa làmmiñ. waaw parfois yenn gars yi bu ñuy rab ñuy lekk son yi ñuy lekk si mots yi quoi. yaa ngi gis loolu yëpp génn quoi. gan aussi boo xoolee mokk yi peut-être egg na foofu mais fan la ko ëppalee benn point mooy si par rapport égotrip bi. waaw égotrip bi dafa développé lu bëri. waaw ah te loolu daf si feeñ quoi loolu moo tax mu am ko benn point bi. dëgg la rafet na gars yi tàccu bon pour man euh, mm-hmm. pour pro. Mm-hmm. am na freestyle 4. blème pro waaw ah. ku nekk nag ak um, rek. waaw ak ni nga koy gisee. <laughs> ni nga bi am na 6. waaw am na 6. ok donc je foofu noonu la noonu la demee. Mm-hmm. pour jour. freestyle yi am na six. Mhm. ci rhymes bi am na neuf. Mhm. parce que gis naa ne rythme yi def ko teg fi mu war a tegu. Mhm. plus ego trip aussi bàkk na boppam am na neuf. ok macha allah ok gars gars tàcc nañ ñaari MC. dégg nga dégg nga thank you very much guys merci beaucoup. waaye man gars yi jaajëf teewaay